asalaamaaleykum wa mbokk yi ñëw ak yéen ci yéeglekaay yi yéeglekaay gii di sunu làmb ak Leewtoo TV ak Record léegi yéeglekaay bii di sunu làmb dafa ñëw ci Balla ci fukki at ak juróom ñi nga xam ne daf na ko ci arène bi di at at yoo xam ne am na ci bonheur am ci déception am ci li nga xam ne moom mooy trahison Balla Gaye 2 daal nee na am na benn sëriñam boo xam ne da koo trahir maanaam daal da ko wor waaye moom Balla Gaye leeral na ci yéeglakaay bii di sunu làmb ne moom maîtriser na bu baax li nga xam ne moom moo di métier te yàlla dimbale na ko ba nga xam ne teel naa doon champion bu mag waaye 2015 daal am na loo xam ne dootu ko fàtte bu mukk maanaam mooy at boo xam ne dafa metti woon trop ci moom ñu ñëw ak leen ba léegi ci yéeglekaay bii di sunu làmb maître Babacar Cissé kat mi nga xam ne moom mooy avocat Luc Nicolaï nee na déposé nañu benn requête pour libération Luc Nicolaï kon daal am nañu yaakaar ne lee mu déposé bu fekkente ne sotti na Luc Nicolaï daal daañu ko féexal mu génn ci kaso ga Sitor Ndour nag di président des arbitres nee na Matar Ba moom waxoon na leen ngir ñu suspendre lii di seen i grève bi ki nga xam ne moom moo di Pakala moom tam jël na tournoi bi nga xam ne moom moo nekkoon ca Fatick waaye booy Faye de daan na ngel jon ca final Adrien Senghor par avertissement ñu ñëw ak ci Leewtoo TV dem fa nga xam ne moom mooy di Bargny Badou Fall numéro 2 daan Libidor numéro 2 bu Sénégambi record nag nee na Thiaka Faye ak Anta ñoom dem nañu Maroc ngir waa ji li nga xam ne moom moo di Jeux olympiques yi jee nag dafa dóor kaw ki nga xam ne moom moo di Daniel Podmore doon champion mondial moom bombar Bombardier ñu koy félicité waaye tam Ndiame Diop daal yéegale kaay bi foofu la mujjee ñun nee na Ndiame dafa mujj doon lii di arbitre ginnaaw bi nga xam ne moom la arbitre yi defoon seen grève bu 48 heures yooyu passé kon mbokk yi yi lañ leen indi woon ci kaay gi jërë geen jëf mbokk waa Leewtoo TV nuyu nuyu di leen leen sant Birame ñi ngeen àndoon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Birame maa ngi lay nuyu di la ziar di la delloo ziar bu baax Ndeye Comba di la ñaanal jàmm di ko sàkk ci yow waaye itam di nuyu mboolem ñuy suivre ci Leewtoo TV. man dafa xëy dala ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye ñëwaat nag si ne def na 15 euh, ans mooy fukki fukki fukki ak juróom euh, bu mu euh, daree takk ngem ba léegi nee na kenn si ki nga xam ne moo tàmmoon di ko ñaanal nee na daf ko trahir nee na moom métier am liggéeyam muy làmb nee na da ko xam lu bu baax a baax nee na nag yàlla dimbal na ko ba mu teel a nekk champion xam tamit lu mu bëgg investir si si xaalis bi nga xam ne moom la gagné ñëw na tamit en 2015 nee na dund na ay jafe-jafe yu metti si si si làmb biram daal loolu la Balla Gaye xëy tey wax fii nga xam ne mooy sunu làmb waaw am na solo Ndey Kumba xam nga fukki at ak juróom du fukki fan ak juróom te 15 ans de reñ boo ko defee war a def sa njàngat euh, xool xam li nga xam ne peut-être nii la demee wala nee la demee woon euh, am na ci droit am na ci moment yoo xam ne da ca kontaan lool bari ci bonheur macha allah waaye itam am moment boo xam ne da ko wóor ne am na ñi nga doon àndal am ñi la ci trahir bokk na ci benn sëriñ boo xam ne tudd na ko bon euh, loolu nag du ñàkk parce que ñaar ñuy ànd ñooy tàggoo xëy na nag euh, loo ci gis rek lu mënti doon xëy na erreur la peut-être ci seen diggante lay doon am nañu ma benn malentendu yi mu xool ba gisatul lu ko doy moom sëriñ ba dem wala leneen wala mu def loo xam ne jëru ko waaye loo ci mënti dégg ànd daal mu gën a yàgg te ànd ak jàmm ak euh, tawféex moo gën a am solo boo xoolee tam fa mu waxee ne Euh, yàlla def teel na koo def champion loolu moom waxatuñ ko daa ñëw rek bokk li ñu naan dafa ñor tabbi euh, te wax dëgg si yàlla boo xoolee fukki at ak juróom yooyu euh, bu demee ba ne man maîtriser naa sama métier yaakaar naa fukki at ak juróom ku ko jàng métier da ko war a mokkal bu baax a baax baax te parce que nag ndey ku ma ci juddu nag boo ci xoolee xelel 15 ans actuellement yaakaar naa ne ponkal lay doon. Babacar ni ñëwoon euh, Biram maa ngi jégalu <laughs> Biram euh, ni ñëwoon nag ak ki nga xam ne mooy Babou si Babacar Cissé avocat Luc Nicolas neñ daam ñoom dépose nañu benn recours pour daan benn requête pour nu mun a libérer rek li nga ki nga xam ne moom mooy client muy Luc Nicolas Biram waaw xanaa ñaan yàlla rek requête ba arife ci jàmm vraiment ñu am ci lu ñu bëgg mooy Luc Nicolas parce que ci suñu ñun la bokk dafa bokk ci làmb mm, doon koo xamee ne wax dëgg si yàlla bu demee rek manqué na lu bëri ci làmb ndax gis nga Euh, comme bu mag bu mu taxawal combat royal bi bu pare après yàlla dogal li mu dogal kon bu maître Boubacar Cissé defee loolu euh, ak ay avocat yu mu àndal yëpp dañuy ñaan yàlla may leen ci ndam boo ko defee ñu mën a libérer Luc Nicolaï làmb ji mën gën a am euh, li nga xam ne moo di yaakaar parce que nag soxla nañu Luc actuellement Euh, suñ jógee nag euh, si affaire justice boobu nu des nag euh, toujours si sunu lamb ak combat MMA bi nga xam ni amoon na fee si Angleterre la samedi bii nu génn Bombardier am amati na ndam ñaareel ndamam si combat MMA ki mu daan nag mooy daan Podmore benn anglais gagné nag ceinture mondiale bi nga xam ni moom la ñu mettoon en jeu biram. la ñuy wax Bombardier waaye nam félicité waa Sénégal yëpp parce que bu ñu nee ceinture mondiale bi eh, doomu Sénégal moo ko gàddu rawatina nag doomu mbuur wax dëgg yàlla nag jar nañu ñu kontaan ci bu baax baax en tant que ay acteur euh, de la lutte waaye tam itam euh, Bombardier euh, dama yaakaar ne wax dëgg yàlla lépp lu mu def rek day loo xam ne xam na ko bu baax a baax parce que boo xoolee fan yu mu dem avant li nga xam ne moom moo di kombaam ñu bëri jàppoon nañ ne fan yu gàtt la pour ñoom dañoo war a dafa war a teel a dem fekk na la mu fiy defe mooy dem def kombaam wàññeekuwaat mais demu fa ngir entraînement moom daal loo ci mënti dégg bombal ji pour yokk ko du bëri lu ko yokkal mooy ñaanal ko ceinture bu jig ko te mu am ci ay yeneen ndam yu bëri ci MMA bi suñu jógee nag euh, si euh, MMA dañuy dem nag euh, si nga xam ne moom mooy lutte avec frappe bi nee na Babou Fall moom moo daan ki nga xam ne moom mooy Libidor 2 foofu si stade Barnier bi biram waaw euh, Badou Fall numéro 2 mu ngi bokk sa Thiaroye sur Mer euh, Libidor 2 bokk Sénégam bi doon doomi Ngunjaan euh, xam nga Badou Fall dafa duggoon Ngunjaan daan assurance moo tax mu doon presque revanche par procuration ñu bëri yaakaar ne Libidor da ko xawoon a xeeb tuuti parce que taille bi la Libidor da ko sut ba pare ëpp ko tuuti gabari waaye nag ndey kumba loo ci mënti dégg jël bu doy waar la ko jël la la ko daan da ko siif da ko dóor ba mu mel ni koo xam ne day jéem a fay rek mu siif ko jël tànk ba rek wañ ko mu tëdd. Euh, ni ñëw aussi dimanche bi tak ki nga xam ne mooy Idali ñi ngi moo organisé woon tamit euh, nee ñu tamit euh, caatuwaalo moom moo daan nga xam ne mooy njaxas biram waaw Idali ñi ngi dañ koy gën a ñaanal rek parce que xam nga xale la te gëm boppam mu ngi ci def ay preuve aussi ci làmb ji mu ngi ci troisième journée donc vraiment dañ koy wax na gën a góor góorgóorlu mbër mi daan nag di di caat ñoo ngi koy ñaanal Euh, di ko di ko féliciter waaye tam di di encourager ki daanu xam ne làmb noonu la parce que da ngay gàññe rek wala wala ñu gàññe la waaye loo ci mënti dégg euh, ñaari ndamay dégg duggandoo waaye benay génn keneen ki nag il faut mu am defet waaye lépp Sénégal la lépp fii la yem ndey kumba ñu jógee nag si bëre dóor nañu dem si lutte euh, simple ba ki nga xam ne moom mooy Boy Faye moom moo daan ki nga xam ne moom mooy Ngel Njoon Ngel Njoon daal saison bu ubbee ba léegi déggul daal félicitation moom daal mu ñëw rek lay dégg biram waaw jërëjëf xanaa bu weesoo peut-être la mu jël ci biir dëkk ba ay pasi euh, boo seetloo ngel jon daal euh, tournoi bi Adrien Senghor bi nga xam ne dañoo ne moom moo ko moom presque wala mu bokk ci ténor yafu moom euh, amagu fa chance pour daan ba jël li nga xam ne moom moo di drapeau bi boo demee ba booy fay daan na ko c'est vrai par avertissement la waaye réglement la donc bu génnee ñetti yoon te làmb ji jeexagul dañuy jàpp ne rek ba léegi kon ngel joon amagul chance pour mën a jël lii di daan ubbi ci Adrien Senghor Ndeye Comba su ñu génn sunu laam nañ dem fi nga xam ne moom mooy record ne ñu nga ne pour préparer qualificatif Jeux yi nga am ni mooy mooy am Tokyo si si euh, at bi nii nee nañu ki nga xam ne mooy Thiaka Faye ak Anta Samb ni ngi Maroc pour préparer wu waaw Jeux olympiques yi Thiaka Faye Anta Samb ñu ngi leen di ñaanal seen préparation bi lañ ci nam yëpp yàlla defal leen ci jàmm xewal waaye Thiaka Euh, boo ko xoolee moog Anta Samb euh, ak ñeneen sax ñi ko séqal xam nga lutte olympique daay loo xam ne euh, war na ñëw fii ci Sénégal déjà yàggatul te Sénégal bëri na loo xam ne saa bu ñu demee rek indi ay médailles kon vraiment dañuy naan caaka fay wax dëgg si yàlla gàcci ngaalaama moog ñi ñi mu koy àndal ñëpp ak directeur technique yi ak arbitre yi nga xam ne ñoom ñooy ànd di def lutte olympique fii ci Sénégal waaye itam bu ñu demee Tokyo di def seen préparation dañ leen di ñaanal rek ñu indi ay ndam ak ay médailles yu am doole. ñu jeexale nag ak loo xam ne nag tam tàmm na ko gis nag si CNG wala boog si làmb ji muy arbitre yoo xam ne ñoo grève euh, arbitre ni mook euh, bande à Sitor Beek ak Pierre Malick Ngom week-end bi nañoo grève donc ki nga xam ne mooy Khalifa moom moom mujjoon euh, nekkoon superviseur CNG nag trouvé nag la parade maanaam trouvé na beneen solution pour leen ndax jëli na ay arbitre Kaolack ak Fatick pour mu nii fii nii si Dakar nee ñu sax ministre Matar Ba jéem na décanter situation bi waaye ki nga xam ne moo jiite arbitre yi muy Sitor Ndour moom naa dafa tey fi mu tey grec nee na ñoom seen grec boobu dañ koy continuer ndax condition ñuy liggéeyee métti na lool nee journée 10 ñoom dañu bëggoon naa ku ko yokkal biram waaw xam nga nag ndey kumba kuy liggéey moom wax dëgg si yàlla boo sañoon yokku de arbitre combat ay millions ñuy tudd ay 100 million ay 50 millions ñu lay fay yenn prix itam ah euh, xaw ma nag fu ñu ko teg waaye nag xaw naa doy waar donc euh, loo ci mënti dégg waxtaan moo ci gën te euh, grève bi laal na li nga xam ne moom mooy làmb ji laal ko baax a baax boo seetloo arbitre lu ñuy arbitrer xalifa Sow ñu ngi koy nuyu au passage euh, dem na ba a un certain moment moom moo jóg ci chaise am sax dem di corriger benn arbitre ci biir naan ko nii nga war a def xam nga loolu nag wax dëgg si yàlla euh, loolu mooy rek euh, jooy nañu malik Ngom jooy nañu Sitor jooy ñeneen ñu dul ñu ñu mel ni ñoom ñoom kii Habib ñoom Balla ñoom ñëpp wax dëgg yàlla am na lu ñuy def ci arbitrage bi ba ñu tàmm leen teg ko ci yoon de telle sorte que bu ñu waree avertir mbër ñu avertir ko bu ñu waree def leneen ñu def ko te combat bi du dem ba romb round d'observation te mënuñu leen atte donc loo ci mënti dégg daal ñu ngi ñaan waxtaan bi abuti ci jàmm ak salaam bu juboo am ci ñoom ñu mën a continuer seen liggéey bu dem nag si kàddu yoo leen tàggoo di leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu ma nuyu sunu yaay merci nuyu sama doom Mouhamed Diouf astandine chéri Khadija Diallo depuis Italie ak Parcelles Assainies yaa ngi si biir nuyu ki nga xam ne moom mooy samay nga euh, di nuyu aussi ki nga xam ne mooy Abdou Gueye depuis États-Unis euh, Baye Fallou Diamagay Papa yaa ngi si biir duñu ki nga xam ne ni mooy euh, Aline Ndiaye depuis Italie aussi yaa ngi si biir mention spéciale ak sama tonton ki nga xam ne mooy mbay Seye moo génn fii tey si maillot PSG bi après bu nu amee victoire ak Dijon weekend bi nu génn 4 buts à 0 di félicité aussi sama sama doomu bàjjan Babacar nga xam ne mi ngi ak yaay si soxnaam moom tamit di ko félicité ndax Real démb moom moo daan ki nga xam ne mooy Barça 2 buts à 0 donc daal weekend bi neexoon na trop si waa PSG ak ñi nga xam ne waaye Real de Madrid Birame ñi nga looy tàggoo yow moom football moom du sa mbir xanaa ma bàyyi nga tàggoo si làmb ji. xam nga football day kumba euh, ci sama génération maa ci gënoon bokk ci ñoo xam ne gën a lajji waaw laaj bal moom def naa ko fi ba daanu laaj ba daanu ah yàgg waaye loo ci mënti dégg maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu ñëpp ñuy suivre ci Leewtoo TV waa Ngunjaan Pey Joor Saamel Càngaay xam nga gëléem moom ko ko yónni ganaar yaa ko ñibbiloo te jëruta yokki koket gëléem moom boo ko joxee ay coquette di ko sol moom pour njoolaay moom xam naa leneen la waaye loo ci mënti dégg Ibra Sarr Badou le phénomène de Mbousnakh maa ngi koy nuyu waaye di nuyu bu baax Fogol lak ah waa génération yëpp ñu ngi leen di nuyu 88 ak 94 ak ngi leen di nuyu baax a baax waaye mboolem ni xeetoog Max Mbargane ñoo ngi koy félicité ci ndam bu rëy bu mu am ci kaw mbay Diagne xam nga ba du Fall <laughs> moo daan Libidor waaye eh, ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm ndey Kumba waaye di la ñaanal jàmm vraiment di ko sàkk ci yow di nuyu Mouhamed sa doom di nuyu ndaak bu ëmb ak eh, Cheikh Ibrahima Fall Lamp yàgg maar mi ne ci caméra bi ak mboolem ñuy suivre jërëjëf. kon boog ba suba incha